waa hôpital Amadou Sakhir Mbaye bu Louga sàggane nañu asu soxna ba mu dee ci seeni loxo waxuma ko journal Libération moo ko bind inacceptable baat boobee la xëy ne dàng fàng ci xëtamu njëkk asu soxna benn femme la bu ëmboon ba toll ci weeram maanaam ëmbub juróom-ñeenti weer keroog alxames ñu yóbbu woon ko hôpital Amadou Sakhir Mbaye ngir waroon ko fa césarienne ndax loolu la ñu bind ci ab dossier médical am ba mu yeggee 9 h ci suba ba ci ëllëg sa 5h30 du matin ndaw sànga tëdd aku mititam di wañaaroo ko yuuxoo ko bitar ñi ko sage-femme yi di ko romb gauche ak droite sàggane ko ba mu far faatu ca l'hôpital ba su soxna ak jëkkëri asu soxna ñoo dem ba mu yàgg ñu gis ne asu nekkatu fi faatu na ca la sage femme bak aide soignant ba soog a jublu ci moom ngir doon jéem a nëpp nëppal li ñu def dem wuti ab certificat de décès boo xam ne amul sax signature jox leen libération nañu moom asu fi mu tuddoon di matu dem na ba naan leen dimbali leen ma ngir yàlla opéré ma sage femme ba naan ko ki la war a programmer àjjuma la fay nekk mujj gi mu naan ko soo arrêté wul yi damay génnee sa yaay ak sa loolee du dëgg seen doom Astou faatu na te waa l'hôpital Amadou Sakhir ñoo ko rey lu rey mbum deece ñu jugee Louga ñëw Dakar wax ci ndaje mi président Macky Sall woote woon keroog samedi ubbi l'observateur mi ngi ñuy wax ne lu ñeel élection législative yu jëm Macky mi ngi ci kaw yeewi askan ak compagnie bëggu may dara moo waral mu dajale woon ay lieutenant keroog samedi doon waxtaan ak ñoom ci élection député yi ba 16h journal bi ne Pastef wàcc seen bopp wàcc ci terrain bi dajek askan wi ndax politique du rekk toog ci kaw ne gongu ne buur journal bés bi bind ne Macky Sall yokku na gaayam yi àll ba xamal leen ne lenn rekk jamono ji moo ñu war a yiteel moo di ni ñuy def ba gàñe Ndakaaru ci élection législative yi lise ko nañu teg na ciit yàbbi ay dëggam yu xàtt kii di Amadou Ba ak ñi mu àndal 30 yi ñu ko dajaleel ci Ndakaaru moo ko soke Macky da ko xeeb partem bii di APR li ko sonal ca Touba koy wax ci biir l'Observateur moom daje bu ministère emploi ak formation professionnelle doon responsable ci parti APR nee na gisee suñu taxawaay oyof ca Touba moo di dañu fa amul leader bu mat bu tax ñu naan ab leader mu ne waa Touba amuñu ak président Macky Sall benn ma yàlla ñamu fa tekkay dénk leen parti bi ñoom la waa Touba bëggul moom présidente réseau Femme du Bawal gi ne nekkee wuñu fa dara lu dul xastanteeg wax ju ñaaw ak di dàggasante ci réseaux sociaux yi Ami Mbàkke ne te li ko tax a métti moo di ay kilifa yu mag yu waroon a yoon ñoo ko fay def l'observateur nañu ca Touba Aliya fa la yëkkate yooyu le kàddu ci ndaje mu fa doon amal jëmoon ci jébbal askan yi ab ceeb diwlin suukar ak yi ñuy dundee ci weeru koor yi journal La Tribune xëye moom it bu solu dàllam dugg réew mi ngir waajal élection législative yi mu di Maïmouna Sissoko Khouma moom mi jiite agence nationale case yi tout moom mi jiite enseignant républicain yi bi nee nañu ma nga woon ca Kolda ca Sédhiou ak ñoom ci li président Macky Sall def ci wàllu njàng meeg njàngale mi ci fukki at yi mu jiiteegum réewum Sénégal ñoom jàngalekat yi yéenekaay bi nee nañu dellu nañu féddali seen engagement ci wetu président Macky Sall ndax jàpp nañu ne bukku mbay bañ sàmbay rasu Samba Sall maire bu Dabali xëy na ci Serigne Boub maire bu Kaolack yëral xët mu njëkk Vox Populi Sall nee na Serigne maire par accident la nee na ku jàpp ne waa Benno Bokk Yaakaar dañoo perte Kaolack yaa ngi nax sa bopp Benno Bokk Yaakaar mooy majoritaire ca Kaolack mu teg ci ne li ñu ñàkk kës néew ca Kaolack li ñu ko xañ moo di ay biccoog mbaaloog ñàkk déggoo gu ñu feeñaloon ci suñu biir ci élection locale yi ci élection législative yi jëm Vox Populi nee nañu moom waa ji di maire Samba Sall mi ngi koy waajal ak doole moo waral mu taxawal ko Macky encore waxi aji Makka ci journal Le Quotidien yéenekaay bi xëy na di ñu xibaar ne nombre pèlerin yi Makka may Sénégal ren ji ñoo six ujaaj ci kaw loolu ba tey quotidien nee nañu voyagistes privés yi ci réew bi li ñu bëgg moo di ñu jox leen quota bi yépp ñu gérer ko